jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñuy seetaan à travers la chaîne Thiès 24 di leen wax daleen nag jàmm seen émission tout sur la santé tey nag ñu fas yéene waxtaane li nga xam ne mooy euh, hépatite B di jàngoro bi law fépp ci àdduna bi pour waxtaanee si loolu nag dalal nañ suñu plateau ki nga xam ne mooy euh, docteur Ibrahima Yves di urgentiste fii ci hôpital régional bu Thiès ñu fas yéene waxtaane li nga xam ne mooy cause hépatite B conséquences yi ak solution yi docteur ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay maa ngi lay maa ngi lay nuyu yow mi nuyu euh, téléspectateur yëpp képp kuy seetaan télé bi maa ngi koy nuyu di ko di ko ziar nag docteur Ibrahima Iwade nekk urgente fii si hôpital régional bu Thiès di am mbégte di dafa yëngu émission bi di wax si hépatite. parce que nee ni honneur ngeen ma def honneur bi ngeen ma def nii ma mu mun a jàkkaarloog population bi ñëw si télé waxtaan ak ñoom si hépatite loolu honneur la si man. Euh, waaw hépatite mun nañu wax ni feebar bu ñu xam la feebar boo xam ne la mun nañu wax. bu law la si Sénégal bari na si Sénégal loolu waxuma la Sénégal sax muy monde bi sax hépatite dafay bari muy dëkk yëpp ñoo xam la hépatite am boo xoolee sax am na dëkk yoo xam ni bala nga faa dugg da def test hépatite mu dëkk naa yoo xam ni balaa ñu balaa ñu nangu dugg seen dëkk danaa la defal test hépatite ba xam kon donc hépatite moom problème bi la fépp mën nañu wax aujourd'hui que hépatite problème santé publique la hépatite nag dafa bari ay façon am na hépatite B am na hépatite E am na hépatite D am na hépatite C mais lu ñu gën a concerné lu gën a fréquent ah malade bi si gën a grave mooy virus hépatite B hépatite B nag benn infection la infection boo xam ni dès la fois bi ba pare virus bi koy andi mu nekk virus hépatite B loolu la ñuy woowee hépatite na différence différence bi si ñu leen di ñu leen ñu malade bi di ñëwee si yow mu ne différence fan la nekk si gravité bi ak si virulence bi ak si méthode bi si foofu moo seen différence ba pare nag ci xeetu jàngoro bi dafa am différence xam nga bala bala ngay wax jàngoro bi bu mu la duggee lu muy manifester si yow du ngay njëkk wax ni yan motu lay duggee si yow fan lay jaar ba dugg si nit ki kon mun la ko waxee d'abord cause bi benn virus moo koy indi mais ni muy duggee si yow tamit dafa am solo trop parce que nu muy duggee si yow fu mu njëkk commencé mooy par le sang si deret lépp loo xam ne exposition deret la mun na andi hépatite B. ça veut dire mun na nekk par injection quand bi l'individu bu nekk nekkee en contact avec le sang mun na nekk par rapport sexuel mun na nekk par exposition des produits sanguins. Hmm? mooy nit ki bu bu laalee deret bi deret deret boo xam du deretam beneen deret quoi bu ko laal bu nekk en contact avec deretam hmm? mun na nekk tamit manipulation yenn yenn kii yenn par salive bu ah? euh, ne nekk manipulation des objets souillés hmm? yooyu ah wax naa tamit euh, par voie par voie par rapport sexuel tamit wax naa ko yooyu yooyu si foofu lay jaare pour mun a Euh, euh, dal nit ki te bu ñëwee ba pare dafa am ñaari façon hépatite B am na hépatite B boo xam ni aiguë la comme ni ngay tekkee ci olof sax mais moo xam ni daal bu bees la ak hépatite B boo xam ni bu dafa bu nekkee bees ba pare après day tendre vers la chronicité day yàgg da nekk ci yaram bi yàgg mooy chronique mais lu ñu mënti wax mooy euh, bu bu bees bi ni muy manifesté woo des fois nit ki du sentir benn signe. yu bari nit ku sant benn signe hépatite lay nekk si moom dal ko du sant benn euh, si jour su bu bees bi lay jékki-jékki comme ku siburu mun na la def fièvre def la biir bi metti def la articulation yu metti def la muscle yu ba pare nag am coloration jaune say urine ak say yeux ak xam nga su ne peau sax ñu moom du xaw mais nit ku weex moom nga gis peau bi jaunâtre yeux yi yi jaunâtre dégg nga ongle yi zonage noonu noonu lay manifesté woo ci si bu bu aigu bi mooy bu bees bi mais aigu boobu bees boobu mën na jékki-jékki au bout de six mois mu disparaître completement si nit bi wala mu tànd vers la chronicité ñu bari nag seen problème yëpp yëpp yëpp mooy ah boo amee hépatite rek am nga cancer wala am nga cirrhose affaire yi du noonu de dañ yu chronique yi. waxuñu yëpp de am na yoo xam ne mun na joxe cirrhose am na yoo xam ne joxe cancer mais waxuñu day joxe immédiatement cancer parce que suñu problème mooy problème de communication parce que des gens yoo xam ne dañuy ñëw jaar benn poste de santé wala fenn wala jaar si benn professionnel de santé mu def test yi mu am hépatite rek mënu ko soo moytu da nga am cancer wala da nga am cirrhose waa ji yàq àddunaam yëpp dootu nelawati xam nga daal di stressé. affaire yi du noonu. donc dara ak cancer. dëkk mën a jox mais yu mën a joxe cancer bari na te te du ñu hépatite am na nga xam ne am na hépatite yoo xam ne du du du du virus moo ko andi am na hépatite yoo xam ni ay médicament moo ko andi am na hépatite yoo xam ni alcool moo andi am na hépatite yu bari yoo xam ni du microbe andiwu ko am na yoo xam ne intoxication sax mën naa andi hépatite donc du hépatite yëpp mooy andi cancer dañ ni am na hépatite yoo xam ni mun nañoo waxumala mu day dem de mun mun nañoo évoluer vers un cancer mun nañu joxe cancer mais du yëpp te pas parce que am na hépatite rek day andi cancer loolu mooy sama problème ak malade yu bari parce que day ñëw fi stressé nelaw nelooti xam nga daal di kenn xamul lu ñuy mel ndax information yi leen di jox information yi leen di jox baaxul dañ ni hépatite chronique am na yoo xam ni peu mun nañoo évoluer vers un cancer. wala joxe cirrhose loolu la ñu la wax. donc mën nañu yi waaw mën nañu faj mais faj bi mooy lan mooy traitement symptomatique bu fekkee équipe bi am sibiru nga faj ku ni ñu fajee sibiru joxe ay paracétamol ba astafurla joxe ay kii euh, ay médicaments yoo xam ni dina tax feer bi wàcc dina xam dina tax douleur bi douleur abdominale bi dañ mais virus bi am na comme ni ma la ko am na yoo xam ne de six mois mm. day dañ am na yoo xam ni après day resté. mais am na yeneen médicament yoo xam ni des antirétroviraux yoo xam ne mën nañu ralentir la progression du virus la progression la progression de la maladie comme benn comme médicament bi ñu koy waxati waaye comme tenofovir tenofovir mën na wàññi progression médicament vers la kii quoi mooy mooy les l'hépatite chronique progression mun na ko wàññi wala entecavir mun na ko wàññi te tamit mën na diminuer mën na diminuer la charge virale. mun na ko wàññi quoi ñu ñu virus di évoluer sur organisme mun na ko wàññi bu baax a baax. ndax yaay par par kii par par les par les produits sanguins un au de l'accouchement mun na ko wàll au a de l'allaitement mun na ko wàll c'est la c'est la transmission faute parentale. est que waaw rapport sexuel boo wax naa ko te passe par la salive. Hmm. waaw fóonante yooyu ñuy ñuy fóonante yooyu gestes na ko andi. est-ce que aussi mën nga ñu wax euh, comme nit bu demee nga am hépatite B wax naan boo amee hépatite B da lay maigrir loo jeex loo est-ce que loolu aussi moo ko leeralal. ma ni boo amee hépatite mm-hmm. mun na loo soo du am benn signe. des fois au cours d'un examen ñu ni defal benn bilan wala jigéen ñu bari yenn saa yi bu ñu bu ñu def consultation prénatale. ci la ñuy gis dafa am hépatite B wala ñoo xam ne bu ñuy def bu ñuy mayee deret xam nga booy mayee deret ba pare dañuy testé sang bi ci la gis dina am hépatite mais du ñu yëg dara seen yaram dégg nga voilà loolu tax lu daan da ngay jeex ak yooyu yooyu yëpp dañuy wax peut-être am nañu si am na yenn hépatite yoo xam ne comme mu la wax ni duñ mun na am mun na évoluer vers un tableau de cancer mais cancer ku am mun ngaa jeex tàkk mun nga am altération d'état général te yooyu du yëpp ñu tuuti une petite portion mooy évoluer vers de cancer. mais c'est pas c'est pas l'hépatite mooy évoluer systématiquement vers un tableau de cancer loolu amul. y a la prévention nañu vacciné wu am na vaccin contre l'hépatite et puis c'est disponible dans les officines c'est disponible c'est disponible partout il faut que les gens se vaccinent un dans dans le programme de vaccination élargi chez les enfants ni si boole vaccin contre l'hépatite je crois qu'am naa à mon avis je n'ai pas vérifié parce que c'est pas mon domaine mais dañ ko si war a boole su population yu defee test vaccin contre l'hépatite après nañ mën a prévenir l'hépatite deuxièmement il faut se protéger contre les produits sanguins surtout les les travailleurs de la santé les professionnels de la santé il faut qu'ils se protègent quand ils sont quand ils doivent être en contact avec les produits sanguins ils n'ont qu'à se protéger porter et cetera des masques euh, les, les, les, avant de, de, se marier, il faut faire les, les tests prénuptiaux. Hein? Mmh, faire le test hépatite et d'autres. Mais les gens se marient comme ça sans faire des tests. À l'aveugle, hein? c'est une confiance mutuelle, avec ni à te Mais il est important parfois de faire le test. Mmh? Ça permet au moins ñu xam ñoo fu ñuy teg seen tànk ak lu ñuy def. am na ñu ngi waaw euh, man maa leen maa man maa leen di wax jërëjëf parce que en tant que professionnel de la santé en tant que euh, acteur de la santé ngeen ñëw ni ma tàllal ma tele ni ma waxtaan ak population bi kon maa leen di wax jërëjëf man aw ma seen fay. kon donc dinañ sant di leen gërëm di sant ñëpp ñoo xam ne déglu nañu émission bi di leen wax nag nañ nañ dem vacciner wu contre l'hépatite parce que euh, ci vaccin yi mën nañoo protéger contre maladie maa ngi leen di sant di leen gërëm jërëjëf. alors mbokk yi lii lañ leen indiloon seen émission tout sur la santé tey nag ñu ngi doon waxtaanee hépatite bi dégg ñoo ko déggandoo li docteur Yves wax euh, ngeen dem auprès des docteurs ngeen def seen test def seen vaccination alors di leen jox dig daje fii ak quelques jours allah.